baax a baax ñi ngi taxaw ak le grand champion Cheikh Tidiane Niang xale parcelle bi mbër ñu lay ziar. waaw delloo ziar kay. waaw yaa ngi baax sant. sa poulain sa doomu day aada booy bawoon am combat bu mag. waaw loola waa ñaan def leen li ñu war def lépp di ñaan yàlla may ñu ndam loolu rek moo si des incha allah le huit ñu ñaan yàlla yàlla may ñu ndam baax baax bu doon loo xam ne dañ ñu jig waaw. ngeen am adversaire de taille bu waaw loola loolu méttiwul aada Yoff la waaw est-ce que sa waay du ko faj faj fan waay yow day xaar day xaar waaw arobase day xaar inshallah arobase daanaan la yow ñu woo ñëpp nag ñu woo ñëpp ñu woo waa parcelle ñëpp ñu woo ñëpp arobase moom mosu ñoo laale waaw mosu ñoo laale mais yow fan nga toll fan nga toll exemple sa combat waaw ñu ngi wax déggoo moo amagul mais ñu ngi wax am nañ yaakaar bu baax a baax inshallah waaw balaa semaine bi di yaakaar bu baax. balaa allah am nañ yaakaar bu baax waaw. yow ak non ñuy wax. waaw ñuy ah, am na lu ma forcé wewu béy de. waaw mooy lan. sa diggante ak Alboury bu kaay baax. ah en tout cas wax de. yaa gën a am gañ muy lool. ñu ñor quoi basaay muy loolu. mais lépp simple bi tamit dañ laa nangu quoi. waaw maa leen raw maa leen nekk si li ñu rek xam nga boo si contrat jàmbur nekkul leen ni nga bëggee rek ay demee waaw loolu lépp simple bi kañ lañ la mën a xaar. waaw waaw waaw maa leen raw fii maa leen raw billaahi. kañ ah, daw simple bi. Ah. man damay dem li simple li direct. sa fan si daan maa ne Cheikh Tidiane Niang. ah ko de. <laughs> ay na mën na la de. Ah, maa leen raw mën léegi tey rek incha allah léegi tey rek. mais yow da ngaa bokk ci li simple. loolu dëgg la loolu yëpp dëgg la mais xam nga ñun dañoo ne amatuñ dara lu dul concentré aussi écrit bu nekk am combat ñu gunge ko yàlla lu mu rek ñu xam ne loolu sa wërsëg instant man fa laa toll. naa wax ne amoo woon jot mais tey damaa am jot ndax boo xawlee nit ñi dañuy ñëw di teew mais man damaa concentré aussi brodeur bi. sama gars bu amee combat damay dem dama ko ne man damay am combat ñi topp ma te du topp fi ma toll nii képp am combat fii muy sama petit frère muy sama grand frère dama topp ba combat bi jeex waaw lu ñu yàlla may ñu xam ne looloo suñu loolu loolu loolu moo ñu man fa laa waaw amul lu ma deful fi simple waaw. ñaata médaille ñaata médaille waaw jël jël franc ko ah. ah, lit lit waaw lutte libre lutte ci table bi jël si ay ay médailles. dafa jot Cheikh Tidiane wane boppam ci lutte qualification champion champion du monde loolu muy loolu ku ko def rek muy loolu amatuma lu may prouvé mbapat instant yi concentré si bëre door bi rek gunge samay nit loolu rek waa sama écrit képp ak waa parcelle képp ku am combat ma gunge la balaa tool bu ma amee combat tamit ñu gunge ma instant yi loolu moo ma ñor te le huit incha allah ñuy ñaan yàlla gars yi jàpp di wo di wo woyaa boole séeréer ndam day na baax a baax ata boy bawol be ku xam nu ndamtin a paax a paax ngeeda ñaano saax o saax anda ah, nit ku la nit ku baax la mënuma ko wax mais après combat bi laa siide baax billahi walaay talaay yal na ko yàlla fay xolam te yàlla bu ko fay xolam dina am ndam billahi anda ah, amul lu muy ragal amul lu muy tiit yal ko yàlla may ndam man loolu moo ma ñor man maa war a am combat mu ne man maa war a am combat moom mu war a daanu yàlla naa daanu moom mu daan. Eh, yow kon yéen sa diggante ak aada garaaw na de. ma la wax après combat bi leen rek. loolu après combat bi jàpp si bu dee moom moo war a daan daanu bi mu war a daan yàlla na ma ko defal man ma daanu moom mu daan. mu daan loolu soor de. passé rek la expliquer lu garaaw laa lay wax billaay wallaay di woo sama mbokk yi ñu jàppale ko bu baax a baax boole séeréer mais daa dañ ndapina maak a maak billaay wala kaya nu ando naga soppees refo ref supporteres mais daa o sallana ada ku ka foona ten o fi'in pour te wo jënda waxa mayu o waama ñoow ten mayu i joko ok inshallah ah ana madam